mission nag bi mu am waxoon naa fi ne sénégalais yi ne Macky Sall liggéeyul en 2019 Macky Sall dañ ko jox avion bi gën a gaaw ci réew mi buy jàll ñu xàllal ko bu sëqatee sax kenn du sañ wax ñu jël ay milliards jox ko ko jël ay forces de défense et de sécurité jox ko ko maanaam jël état jox ko ko Macky ne non. doole jooju ngeen ma jox soxlawuma ko pour tabax réew mi doole jooju ngeen ma jox muy état muy puissance publique muy juge muy police muy nervi sax boole na ko ci ay doole yoo xam ni bokkul ci ay ay kii regal régalien doole jooju nag la Macky Sall jël teg ko ci benn nit mu ne ci kaw Ousmane Sonko rek laa koy teg liggéeyatuma mais sama mission mooy ma éliminer Ousmane Sonko. politiquement d'abord waaye léegi sax élimination politique bi teg na ko fële parce que président Ousmane Sonko dafa nekk genre hydre hydre mooy monstre boo xam ni fukki tet teg junne bopp la yor saa yoo daggee benn bi beneen bopp jug loolu nag moo ko jaaxal ba fu mu toll nii mu ne nekk léegi comme mënatuma ko rey politiquement lépp lu ma tegoon ci ay procès caaxaan ay complot caaxaan teg naa ko waajaa ngi may rëcc léegi nag naa ko rey définitivement parce que loolu lañ gis démb ñu gis nag maintenant fan yi ñu indi benn caaxaankat boo xam ni Sénégal yépp xam nañ ni alalu réew mi daf ko luubal mu bëgg a jafandu nag ci benn procès en diffamation nee président Ousmane Sonko daf ko tuumaal et que nag léegi danañ ko yóbbu tribunal pour ñu atte ko yéen ñii journalistes yi fi nekk déggatu leen sax ñu wax mbirum aji Sarr loolu moo leen di won ne am na lu ñu nar ci lii te dégg ngeen le ministre de la justice ki nga xam ni moom la ñu dénk wàllu yoon ci réew mi mu ne publiquement que ni président Ousmane Sonko dafa diffamé Mame Mbaye Niang yéen a ko dégg ngeen dégg beneen ministre muy Moussa Bokar Thiam mu ne le 30 incha allah ci ñoom seeni mébét président Ousmane Sonko daañu ko condamné kon Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew leer na naññ ci suñu bopp ak seen bopp que le 30 mars Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko dafay dem rek pour déglu avocat yi plaider. kenn ku ci ne wax mu nekk genre parodie de justice manaam loo xam ni comme théâtre rek justice mu pare ñu ne waaw li ñu jot a dégg condamné nañu président Ousmane Sonko c'est-à-dire que fu mu toll nii pour ñun jaratul sax président Ousmane Sonko di dem le 30 mars parce que condamné nañ ko ba pare léegi ñëpp nañu constaté loolu te dañ ne woon procès bi entre deux citoyens la te dégg nañu juge bi ci pour bay passé mu ne il faut que ñu àtte président Ousmane Sonko tey parce que saa yuy génn li ñuy mobiliser ci alkaati xeetu alkaati bu ne nag muy BIP di GIGN di police ak sax xëy na sañu ko wax ak ay nervi mu ne loolu dafa ëpp loolu la juge bi joxe argument pour ne dañuy àtte par force le président Ousmane Sonko ba pare ñu wëlbatiku ne c'est un procès ordinaire entre deux citoyens procès ordinaire entre deux citoyens lan moo ci waral ay junney junney alkaat ñu sotti leen cité Kër Gorgui lan moo ci waral procès boobu ñu ne ñu jël président Ousmane Sonko ne ko doo génn lan moo waral ñu ne ci procès boo xam ni procès bu simple la entre ñaari citoyen ñu ne président Ousmane Sonko say doom du ñu jàngi lan moo waral ci procès boo xam ne nee nañu procès entre deux citoyens la ñu di ci dóor Guy Marius Sagna gazé ko ànd nañu keroog ñun ñii ak honorable député Ismaïla Diallo ñuy jël grenade ni ñu ko dóor nii ci kaw keroog xëy na yàlla moo nanguwul mais Guy Marius Sagna ak ñun ñi am na ñoo xam ne tey jii nii ñu ngi woon tëdd ci suuf procès boo xam ne nee nañu procès bu simple la entre ñaari nit lan moo ci waral lii yëpp question la bu ñuy posé lu ci yoonu bi lu ci yoonu gendarmerie ba démb gis ngeen ñu génne armée kon bu ñu nee sénégalais yi lii procès bu simple la entre ñaari nit nañ waxante dëgg ay caaxaan lañ gis nañu procès bu fi am en diffamation entre le juge Téliko ak kooku nga xam ne bëgguma ko tudd ah mais procès boobu ba léegi mu ngi wéy mat na presque ñaari at un procès en diffamation ñu ne nag noo président Ousmane Sonko nañ ko taxañ tout de suite parce que ñoom xam nañ ni dañuy def li ñuy wax course contre la montre dañuy gaawal mbir mi parce que xam nañ ni am noo xam ne am na foo xam ne bu ñu fa tolloo c'est fini mënatuñ ci moom dara te incha allahu rabbi ñu ngi koy wax fii tey devant tout le monde bu soobee yàlla du ñu mën dara ci moom. kon mosu leen gis nag ci histoire politique ak judiciaire u Sénégal lu mel nii ñu ne nag li ko waral mooy la ñu waxoon ca kanam mooy ne Macky ki nga xam ni moo ko teree nelaw. ba saa yu tëddee bu ko géntee sax day tëb mel ni cauchemar parce que dafa gént lu doy waar loolu moo tax mu ne tey dinaa éliminer président Ousmane Sonko par tous les moyens même nag bu fekkee sax damay dox ci ay néew dox na ci ay néew le 14 mars 2021 euh, en mars 2021 fukki nit ak ñeent ñu ngi tëdd ci suuf ay néew yoo xam ni Macky Sall dox na seen kaw bërka démb bi affaire bi commencé ñaari néew tëdd nañu te kenn xamul mbir mi fu muy mujjee ça veut dire que Macky Sall yoonam nekku ci naa rey sénégalais yépp sama yoon nekku ci mais bu sooba yàlla dinaa maintenir au pouvoir loolu nag la sénégalais yi dul nangu meeting bii passé am Parcelles Assainies président Ousmane Sonko dafa ne woon kenn du ko tànnal yoon bu muy jaar parce que gis nañu fang vidéo yaa ngi daw policiers yi ànd ak ay nervi démb gis nañ ko à la ay nervi yor jaas yi ànd ak policiers yi di dàq xale yi ñépp gis nañ ko démb keroog président Ousmane Sonko bu muy jógee tribunal ñu di ko gazé keroog loolu du gendarmerie gëmuma sax ne police la loolu ay nervi ñoom ñoo ko def parce que commandant bi nga xam ne moom moo yoroon sécurité bi ñëw na ba ci ñun ne am leen confiance ci ñun président Ousmane Sonko dañ koy yóbbu escorté ko mu ñibbi ba mu génnee ci tunnel yi moom si boppam ma nga taxaw ca la grenade lacrymogène yi dal ci kawam ay policiers du ñu sànni grenade lacrymogène seen chef fan la grenade lacrymogène yooyu jugee mu ngi jugee ci ay forces yoo xam ni contrôlé leen force yoo xam ni lu ñu mën a def dara du leen ci fekk ci le président Ousmane Sonko waxoon ne du jaarati ci corniche bi démb looloo tax. ba ñu ñëwee ba ci ron point stel bi mu ne du ma jaar corniche bi comme nee ngeen sama sécurité ngeen bëgg mais d'accord bàyyi leen ma ma jaar fi ma jaar ngeen escorté ma ma dem parce que diggante cité kër góor gi ba foofu mais gendarme yi ñoom ñoo ñu escorté ba foofu lu tax mënuñu koo continuer yoon bi nga xam ne président Ousmane comme moom la bëgg ñu bàyyi ko mu jaar fa ça dire que am na leneen lu ci lu ci am ci loolu ñu bëgg toujours rek comme à ses habitudes gàcceel président Ousmane Sonko c'est-à-dire que humilier ko toroxal ko en réalité Macky Sall loolu la bëgg Ousmane Sonko di torox dégg naa kenn ci ñoom ki démb mu ne da ngeen waxoon lu leen neex ngeen di def mais gis ngeen ni ñu def seen waa ji pamti pamtee nañ ko dugal nañ ko ci oto yi par force yóbbu nañ ko waaye wala woon yar foofu dafa doon wax ne bu ñu yëgoon duñ ko def parce que gis ngeen li xew ci réew mi depuis ñaari fan yi muy loo xam ne ñu ngi koy regretter te dañuy ñaan yàlla bu fekkee nag. Macky Sall mu ngi continuer nii man gëm naa ni réew mi mu ngi ci mu ngi dugg na ci goutte déjà loolu lépp ngeen gis ñu teg ko ci président Ousmane ko yamuñ ci moom parce que xam nañ ni luñ ko dara mais ñu ne nañ ko jéem a néewal néewal parteem nañu jàpp Bassirou Diomaye fay nañu jàpp El Malick nañu jàpp Abass Fall nañu jàpp nañu jàpp nañu jàpp nañu jàpp te yëg nañu lépp loo xam ne ñu ngi koy waajal waaye ñu ngi wax Macky Sall ak nguuram bu fekkoon rek ne suñu confort ñun maanaam suñu bànneex rek moo ñu intéressé nëg ni ñu ngi toog suñuy kër suñu wetu soxna suñu wetu doom suñu wetu yaay amul kenn fii fii ñi fi toog ku fi ragal a dem kaso parce que ña nekk kaso gënuñu ñu ñun ñun gënuñu leen au contraire ñoom sax actuellement ni gëm naa ni ñoom ñoo ñu gën waaye nag waaye nag na Macky Sall xam ne kenn ragalu fi kaso te ragal naa ni dina battre record de prisonniers politique parce que li nekk ci kaso bi actuellement nii ci ay nit ñu ñu jàpp mosul am dans l'histoire politique du Sénégal amul ci Senghor musul am ci Abdou mosul am ci Abdoulaye Wade il y à peu près trois cents prisonniers maanaam juróom benn fukk ah wala ñett juróom benn fukk waa ñetti téeméer ci ak juróom fukk ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay prisonniers yu nekk yu nekk ci kaso bi te xam naa ni fii ay fan ay junney junney nit bu yeboo mu yaatal kaso yi mais ay junney junney nit incha allah lay yóbbu kaso donc kidnapping boobu muy def maanaam sàcc ay doomu aadama dugal leen ci kaso yaakaar ne loolu dina tax nit ñi dellu ginnaaw ci li ñuy xeex boole na ci li nga xam ne moom la koy def ay membre bureau politique ñu ngi actuellement en prison Fadilou Keïta dégg ngeen ko bërk démb commencé na grève de la faim lu ko dal ce sera de la responsabilité du président Macky Sall maintenant li mu bëgg mooy ku mu ci jàpp rek mu téye la kaso lu yàgg yàgg yàgg yàgg yooyu ñuy def seen yëfu caaxaan yooyu di la yóbbu instruction pour xalaat ne loolu bu amee xale nit ñi daañu gën a ragal wax dëgg yàlla ñu ngi xaar te lii ma gis ci réew mi bërk démb ak tey mën naa ne gëm naa ne li xewoon sax 14 mars ak li xew bii mën nañ leen méngale parce que li fi yàqu ci ay alalu jàmbur kenn xamul nu mu toll et c'est de la responsabilité Macky Sall la ak nguuram ñi ñu fi jàpp ci responsable ñi dee ci responsabilité ñaate ñaata milliards la Sénégal ñàkk su manifestation yi amul benn magasin bu ubbi ñaata xale ñaata école la ñu tëj keroog loolu est-ce que Mame Mbaye mi nga xam ne dafa luubal alalu réew mi est-ce que jar na ko Mame Mbaye nag taxul Mame Mbaye Niang objet la bu ñuy utiliser ci loo xam ne stratégie bu ñu teg pour éliminer le président Ousmane Sonko te du te du jàll ñuy wax nag sénégalais yi ñi nga xam ne dañuy xeex pour yoon law ci réew mi sénégalais yi nga xam ne dañuy xeex pour démocratie law ci réew mi ñi nga xam ni en mille mille 2012 ñoo jàkkaarloo nag Abdoulaye Wade ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo woon ak di juuf di xeex pour démocratie law ci réew mi ñu ngi leen di woo te di leen yëgal ne fu mu toll nii ñoom ñëpp ñu ngi toog ci chaise boo xam ne ñaari tànk moo ci des te des na tuuti ñun ñi ñëpp Sénégalais yëpp ñu ngi toog ci chaise boo xam ne benn tànk la li ci des pour mu suux bareetul daanaka sax mën nañu wax ni démocratie suux na ci Sénégal ñu leen di woo nag. muy organisation non gouvernementale yi muy les organisations de droits de l'homme yi nga xam ni dañuy saytu droits de l'homme ak ñeneen ak ñeneen ñu jug taxaw pour ne Macky Sall mu arrêté waxoon naa fi dafa waxoon ne dafay nal opposition bi ba duñu exister ti la ñu wax la mu waxoon mu ngi ci waxoon naa ko du ma ko répété élimination président Ousmane Sonko physiquement léegi la ñuy lañuy ñuy jéem ci loolu yëpp nag ñu may leen ci rek ay point yoo xam ni mooy wone di firndeel li ñu jot a wax le 16 février 2023 gis ngeen ko ñu planifier li ñuy wax benn guet-apens benn piège pour dal ci kaw président Ousmane Sonko ay nervi armé wax naa ko léegi dal ci kawam ci côté Soumbédioune ba jour boobu GIGN ñoo obligé dugal ko ci otoom pour yóbbu ko bu ñu demee ci réew nag ba ay nervi taxaw policiers yi gis leen lu leen di bàyyi ñu opérer ça veut que réew mi toll na foo xam ni kenn nekkatul en sécurité 14 mars 2023 ñu jël ay grenades lacrymogènes sànni ko ci cortège yu convoi wu président Ousmane Sonko bi ñuy jógee ci meeting bi keroog li ñu daj ci yoon bi pour ñëw li ñu dóor ci ay grenades lacrymogènes dóor ko ci président Ousmane Sonko gëj nañ ko def un opposant politique dans ce pays léegi nag ñu ne nañu toog bu ñu wax dara le 15 mars ñu séquestrer le président Ousmane Sonko parce que ñu bëri dañ naan il est en résidence surveillée non il n'est pas en résidence surveillée déedéet dañ ko séquestrer tëj ko ci këram ne ko doo génn daanaka président Ousmane Sonko kaso la nekkoon depuis le 14 mars mi ngi woon ci biir. kaso ci biir këram moom ak njabootam lépp lu ñu am ci ay droit ñu fànq ko jël ay xeetu gànnaay di ko dóor ci kaw euh, garde corps Ousmane koy gis ngeen barki démb image boobu nga xam ne boo ko gisee da ngay xam ni police egg na ak gendarmerie egg nañ ci barbarie boo xam ne kenn mësu jël fetal dóor ko ci tànku nit ba tànk bi ba tànk bi yàqu le 16 mars encore ñu planifier beneen xeetu piège ak ay nervi gis nañ leen ñun ñëpp le 16 mars ñuy dal ci kaw ay militants te ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp président Ousmane ko wax na ko keroog ci meeting bi c'est des gens yoo xam ni au niveau de la présidence lañ leen recruter te daañu ci ñëwaat. ñu jël un député comme Guy Marius Sagna le 16 bi taxaw ne président Ousmane Sonko du dugg seen oto ñu gazé ko Guy Marius Sagna toog na une heure de temps yoo xam ni gisul ba ba muy dugg bi tribunal dañ ko dañ ko.